mbokk internet yi dal leen ak jàmm sommet bu Paris niki keroog 18 mai bi nga xamante ni moom la ñu daal di génn lañ ko doon amal ci diwaanu France a ginnaaw contestation yu bëri yoo xam ne askan bi ñu ngi ko doon def ndax nag ci wàllum relance de l' économie africaine la ñu daal di nag duppee woon boobule sommet de Paris dem ca Champs-Élysées bi nga xamante ni nag fale leen Emmanuel Macron di président bu France dalaloon président Macky Sall bokkoon ci délégation ak yeneen i pays yu Afrique mooy Afrique naka lay amee ay jafe-jafe ci wàllum koom économie am di na sax ndax Covid 19 bi la ñu dem ba France war ko fa daal di waxtaane ñoom pays africain yi nga xamante ni seen i président dañoo décidé dem daal di bokk ci sommet boobu ngir dem France wax leen yan yoon la ñuy jaar ngir daal di nag wàññi bu baax a baax li nga xamante ni euh, moom mooy pauvreté bi rawatina nag euh, kom bi ñu di wàllum économie bi ñu mën koo daal di nag suqale ñu bëri ci askan wi nemmeeku woon nañ ko ci suñu président yu Afrique yi dem xale bu tuuti di Emmanuel Macron naam sax wàllum diplomatie dafa am solo ci réew rawatina géopolitique waaye teewul nag xale bu tuuti bu mel ni Macron daal di nag taxaw ca boppu France lu yàggul dara moo war leen war a daal wan nag ak nan ngeen war a daal utiliser seen ressources lépp rek ngir daal di nag suqali seenu koom te moo ne day France moomu le jamono ji moo gën a ndërmeelu ci Covid 19 bi ndax déet ba investisseurs yi fa nekk daal di nag jóge foofu daw si ñëw fi uh, ci uh, duwaanu nag Sénégal di fi investir waaye nag moom président Macky Sall dem ba négocier baak raay raayal bi neexal ga demoon defali Macron teewul bi muy ñibbisi loxoy neen fi ñibbisee ndax moom uh, bokkoon na ci li nga xamante ni nag mooy hypothèse bi mu yóbbu woon moom président Macky Sall mooy ngir ñu annuler dette bi nga xamante ni nag moom la Sénégal daal di amee réew mu France ak Union européenne ci wàllum nag ndimbal yoo xam ne saay su ne dañ leen abal xaalis dette boobee nga xamante ni daal dinay romb sax a daal di leb nag ci diirub ay ati at waaye nag ci nag waxtaan wi ñu séq te boobule sommet nag yi nga xam ne ñoo jóge woon ci Afrique dem ne dette bi koo annuler tey mënuñu koo ko yenn si pays sax lu ci mel ni la ñu daal di nag annuler detam waaye yeneen pays yoo xamante ni ne loolee sax duñu ko nangu ñu daal leen di leen baal xaalis bi ndax day tax rek li nga xam ne mooy Union européenne ak réewum France nag du ñu amati na confiance di lebal réewi Afrique yi ndax saay ne ab may ci lay mujjee moo tax mu ne nañ leen daal di bàyyi nu mu métti métti ñu daal di koy nag rayante ba fay ko ngir génération future yi bu ñu ñëwee ba war a yor réew yi nag bu ñu demee ngir dimbal ñu mën koo daal di am a ak daal li ngeen mën a dégg daal mooy ne moom président Macky Sall nag ci demam nga mu demoon ca sommet de Paris ba amul benn njeexite boo xam ne mën nañ ko ci dal di gis ndax annulation dette bi nga xamante sax tegal nañ ci benn comité boo xamante ni